ñuy suivre e ni ñu ne kanam coow li bari na nag dañ nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre su ko defee ñëwatu waxtaan bi Lamine maa ngi lay nuyu di la siyaar Thierno maa ngi lay fay di nuyu monde entier di nuyu Sénégal gi di baalu ñëpp àq di nuyu borom site bi ETDR Kandji production sama xarit sama doomu ndey maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax di nuyu mandu entier di nuyu rawatina école de lutte Balla Gaye bii nga ma fekk. Mhm. tey fekk naa liggéey bi xaw na saf de lundi bi la wala combat yi moo laaj loolu wala. non combat moo laaj loolu ak bool seeg lundi bi moo tax ma koy safal ba mu saf mhm. waaw man moom ku bëgg a liggéey rek ku xës ba ñëw fii bëgg a liggéey liggéey bañ a liggéey liggéey. Mhm. tey ni nga démarré ndoog booyu tey euh, ci saison bi soo démarré nii am nga yaakaar bi nga ko jàppoo nii tey euh, saison bi di nga bokk ci maire écrit yi wala. waaw mais booy yi nga ko nekkal tamit day fekk ñoom ñu bëgg rek ñu bëgg nangoo di ñëw chaque jour mais day leen gis nii rek ñoom ñëpp seen i entraînement régulier dañuy daw nii ñu ñëwee nii tey lënd mu met suba ñëwaat fi doo gis xaaj bi yëpp. dañuy daw dañuy daw. mais la ma waral liggéey gu met la wala ñàkk a fonk affaire ñàkk a la rek booy dañuy naxanteeg làmb léegi mais bëggatuñu sax. Hmm. Mhm. ñoom dañuy dem musculation di dem diin di rëy di néewi rek te xamuñu ni lii mooy lii mooy lii mooy làmb physique contact mhm. maman bi euh, ñu ngi jëm ci la 12 ku wax le 12 nag sa xel dem ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy euh, Tapha Tine mais lu jiitu le 12 dañu nuyu bu baax a ki nga xam te ne moo ko taxawal di suñu frère di suñu euh, fierté moom Baye Ndiaye di doomu Géejawaay tey taxawal combat bi mel noonu combat bi am nga ci ñaari boo yu ci war a bëri ndigal war ci bëri jàmbaar caat daaw defal war ci bëri xam ne mooy Coulifay numéro 2 sa ñaari combat yooyu nga am waa di nuyu ñëpp particulièrement di nuyu Baye Ndiaye sama xarit sama doomu ndey maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu kilifaam Abdou Aziz Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax ak ak staffu alburax yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp su fi nekkee di lim rek damay juum di nuyu waale Fallou Ngaabu sama waa ji tamit maa ngi koy nuyu bu baax moom doom day baay la mhm, ñoom ñaar mën naa ne timis ak gee la foo seen baay feen Fallou si wetam seede yàlla maa ngi leen nuyu bu baax di ko ñaanal lim dënmal si journée bi yàlla na ko sunu borom defal si baat sëñ Babacar mu yaakaar ndax ñun lii rek lañ am ñun ay doomu géejawaay lañ te bàyyi doomu géejawaay la te moom géejawaay lay tiitaroo ndax li mu def rek wane na ko ndax mën naa ni quatre combats la si jël géejawaay gi kese ëpp na quatre sax ndax mbëri ndaw yi gis naa si koo xam ñu ngi nekk fee géejawaay si biir kii te mu nekkoon écurie waalo booy rasamaan bi Kenza mhm. ñoo ñëpp plus de cinq mbëru géejawaay yooyu yëpp mu jël leen mhm. loolu kon ñun mën nañu tey ji waa géejawaay amuñu lu dul xam ne bis bi seen bis la mhm. ndax féete na ko ba mu féetewu te turu maa ngi koy ñaanal lim si jublu yëpp yàlla na ko sunu borom defal ndax bàyyi nit ku baax la. da nga ci am ñaari combat yoo xam te la benn bi Thiatou Daouda Fall diggante ma Colifay 2 Colifay 2 min na dugg biir géej waaye rawatina école di Balla Gaye tey kooku muy war a bëri Thiatou Daouda Fall Thiatou noo koy préparé. non man fi mu ne dama ay combat préparé wu ma kenn rek man combat bi yëpp collectif laay préparé mhm. ndax gis nga gàkko 2 mu ngi ni dafa am combat mook Pokola. Mhm. moom mooy njëkk a bëre fi mu ne nii soo xoolee moog Bougane mii ngay gis dafa war a bëre de Sadio moom soo xoolee combat boobu mooy mooy suñu ibin suñu deuxième combat waat la suñu xëyee dimanche bi gàkko pokola waaw après boobu it na fi yeneen combat yoo xam ne après si la defe naa ñoom ndigal ak ñoom caat daaw dafaal di doog di ñëw hmm, mais pour le moment fi ne ñu ngi liggéeyandoo en groupe di liggéeyandoo ensemble mais amul kenn ku kuñ siy concentré sa combat di xaajale ak ñëpp la ñuy liggéeyandoo rek. Mm-hmm. moment bi Lamine wéet na wala wala wéetul. ah non na ndax benn minute rek dafa métti. Mm-hmm. tey gis nga lamin su ñëwul gis nga école bi ni muy deme mais li ñuy wax rek jaam ak pexem yàlla am dogalam xëy na yàlla moo man nattoo loolu mais li ma mën a xamal Thierno su yàlla rek taxee ma wax man dama nit koo xam ne nii laa def du mën na bu dëgg damaa sonn man mm. su ma la waxee guddi yuñ toll mm. découragé sax laa gën a def ka continuer. barke alxuraan man du ma waxantu man xam nga lépp looy def ne xol la mais fi ne nii cent pour cent sama xol moo joxewul quoi mhm. moo joxewul quoi oui ndax booy moom bul xam quoi dañ lay découragé loo tellement que da nga leen di gis nii rek mais ñoom ñii duñ ay nit quoi ñii seen doonug mbër bu mag ñaanuma yàlla sax mu fekk ma yàlla moo tax ma wax rek ñoom ñëpp seen doonug mbër mu mag yàlla ñaanuma yàlla mu fekk ma ndax su fekkoon dama am su ma amee cardiaque dinaa dee te ñoom ñoo lay rey te loolu boobaa xaw ma lu ma wax yàlla. Hmm. am na solo tey ñu taxaw ci grand combat bi muy diggante euh, Tapha Tine Eumeu Sène gis nga ñaari mbëri tey gis nga tey seen état de physique seen forme ni ñu mel ñoom ñaar combat boobu tey la lañ ciy xaar ñoom ñaar. waaw gis naa ñoom ñaar wax dëgg yàlla Eumeu seen liggéey na ay musculam bu baax a baax sax ba foo ko feen gis ne muscle yi moom wax dëgg yàlla liggéey na ko Tapha tamit liggéey na muscle liggéey na luur hmm. hmm. mais li ma la mën a xamal daal la ma la waxoon rek làmb làmb mag mag ak xale. ndax Eumeu Sène moo jiitu moo mag loolu moom jar du werante mm. mais mag mu bàyyiwul boppam la ndax nii mu mel nii mm. su bàyyi woon boppam du ko mel mais da xool xam ne liggéey na moom mm-hmm. bi ma ko gisee wax dëgg yàlla mm-hmm. damaa kontaan di ko ñaane yàlla na ko yàlla defal jàmm mm-hmm. dara bañ koo jot ba jouru làmb ja tafaati nit noonu que le euh, mag mën na feeñ ci combat no mën na demee ñoom ñaar bu ñu moo mag. non doole xale ak doole mag mënut a yem ba léegi mën mhm, ñoo mag mën na faa nekk nii rek muscle yi feeñ ak mais suñ tamponantee da ngay xam ne doole yi yemuñu ko waaw mais tamit mooy li ma waxoon rek Eumeu moom mbër kaamil la mbër la moo xam ne xam na ni ñuy bëree xam na ni ñuy daanee kooku lu mu am rek jàppal ni mën na la see daan mhm, te xam na combat bu nekk ni mu koy préparé te démb dégg nga ni mu signature ne ku xool tafaati ni mu toll ak dayo bi ni mu toll mu ne ko moo la mën maa la ëpp doole te dinaa la duma kon nga xam ne xëy na li mu wax tamit moom liggéey bi mu liggéey doy na ko mais Tapha Tine wax na ko rek nee na ko suñ daggee jéng yi rek maa bul arrière amul ñaani ndox amul tag bi amul lan amul tekki seconde waaw bul arrière rek ah. mhm. combat bu neex lay doon na combat bu neex ah. mhm. mais tey Tapha boo ko doon moytuloo dara ci Eumeu Sène lu mu war a moytu ci Eumeu Sène non du ma ko moytuloo dara ndax la ma waxoon si non la ma waxoon keroog si mootloo Lo Ama Baldé maa ngi koy wax ci côté analyse man leen man su dee entraîneur la suñ ma laajee si domaine entraîneur damay analyser normal mais nit ku nekk du ñàkk nag am na foofar te ceer man mënuma turi sa yemu maak nit ñu bari ñoo xam dañ leen dékk micro ñuy wax luñ gëmul man fii lu may wax rek lu ma gëm la fii duma ma wax rek lu ma gëm la mhm. nga ko météo dara si Eumeu Sène. non non non amul dara loo koy motloo si Eumeu Sène. Mm-hmm. Eumeu Sène sax amul lu ma koy motloo si Tapha moom it diggante boo déggee ñenn ne euh, ku ci nekk da am sa avantage Eumeu Sène avantage am mooy. ah combat rapproché mooy avantage mu Eumeu Sène mu seere Tapha Tine. dër waaw jéem a xeex moom loxo bi jug mu daw jàpp ko bëreeg moom. Mm-hmm. Tapha Tine Tapha Tine moo combat distance ñëpp xam nañ ni moom la arrangé moo ko arrangé. moo gën a jot ay cër mais lu mënti xew heure bu ñu ñëwee kirtim ji accrochage su amee. Hmm. lu mënti xew na fexee ngoobu Eumeu seen ba téye ko ba pare. Hmm. mun na jeexal combat boobu. uppercut yu mën na see dalante. Hmm. su amee ñëpp xam nañ day cordé. Tafa kay su la coree musiba am. musiba am na Eumeu moytu corps bi rek. bu na jeexee dóor mu daan. dóor bu daanu saas na rek ceer heure bu ne day ñëw. coup perdu sax day dal mbër mbër daanu. dóor mu daan moom sens la. kon xaar combat bu neex diggante Eumeu Sène ak. Euh, non combat bu neex lay doon amul xaar de combat bu neex nii naa nii démb ni ma leen gisee ceer démb dama toog leen seetaan benn heure bi ba 3 heures du matin xaw ma 2 heures maa ngi seetaan mm-hmm. dara rëccu ma ci mais xam naa ni combat bu metti la sax bu mettee metti. Mm-hmm. foo toll ci wàccaay bi. Euh, Thier ñoo ngi lay nuyu di nuyu mm-hmm. di nuyu àdduna di nuyu ñuy seetaan yëpp xam nga di nuyu Sénégal. lenn rek laa lay wax. waaw buuse këccëg. këccëg jënd na billet yëpp. Ah, pour sa diggante ak ah. waa Géejawaay yëpp nañ génn. si la Barak. waa jàmbaar waa Laxale. waa Magadaan waa Jàppoo. Mhm. xam nga waa waa waa waa waa waa Paax Baay Moussa waa waa gi yëpp ñi nga xam ne waa marché Pënd ak ñëpp. Mhm. xam nga mhm. ñi nga xam ne ñëpp dañuy bëggee dañuy supporté nañ génn. buuse jënd na billet yi na ñëpp ñëw. xam nga yëngal ci kaw moo yëngal suuf jàpp waaye jox leen ko sànni leen ko. pare nga fi ñu toll pare nañ. Hmm. pare nañ dañuy dañuy maintien nii rek xam nga hmm. instant dañuy fo rek. Hmm. dañuy fo rek ay fo rek moo si des. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi woo tamit. le PDG impôt domaine. muy Mamadou Gueye. Mamadou Gueye kooku suñu grand la suñu lépp la. ñoo ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax a baax a baax. soxla nañ xaalis. soxla nañ ay billets. soxla nañ soxla nañ ay tiset soxla nañ soutien soxla nañ lépp xaalis lañ gën a soxla nag mhm. xam nga li ma làmb ji nekkul nekkul nekkul làmb ju du yomb xam nga mhm. làmb joo xam ne la làmb gox la làmb ju saf la làmb joo xam ne la làmb làmb amateur la làmb Sénégal la ñëpp ngooy xaar mhm. kon tey soxla nañ si jàppale bu baax a baax a baax xam nga ñoo ngi si woo képp ki nga xam ne ñoom dañ ñuy jàppale di woo borom ETDR kànje ñoo lay woo nga ñëw teg teg ñu loxo ci combat bi xam nga di woo Fara Fara moom ñëw na sax te day gën te day ñëwaat incha allah ñoom ñoom ñi ngi ñi ngi woo ñi nga xam ne dañ ñuy jàppale bu baax a baax a baax ñu ngi woo ñëpp xam nga di woo di woo di woo xam nga Père Laay di woo Onda di woo Père Baye Fall di woo waa Soumbédioune waa Médina di woo Ndakaaru yëpp ñu ñëw jàpp si xam nga ne waaw booy booy Médina yi ñi ngi préparé ñu ngi ñëw hmm. Medina Pokola am na fa gétt de. waaw léegi nag day day ñoom dañoo ñëw. Eh. waaw non non Pokola. waaw Pokola fa dara. ah bañ a kaa am. non non bébé jën bu xewal dafay ñëw. waaw waaw waaw bébé jën ko. Eh. ma lañ faral. yow la ñu topp ah. waaw eh. waaw. gaa ko bëgg naa ci yow. naa maa ngi woo ñëpp Thier maa ngi woo Sénégal gi yëpp ñu ngi jàpp si. jaajëf ok jaajëf. merci beaucoup. mbër mu yàqu. Ah. <laughs>